bëccëgu démb bi nag liñ ci mën a jàngat bari mooy jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi waaye fitnaay Ousmane Sonko mooy fitnaay réew mi ndaxte bu nu waxee loolu daam fu ko teg mooy un sénégalais doon un citoyen lambda boo xam ne dafa wuy ji yoon. woote ni na ma samay mbokk ak samay xarit ak ñi ma safoo gunge ndaxte nag ñi naan waratoo woon woote lu tax waratoo woote pour un procès public boo xam ne dañ ne yoon ayewul nga woote mboote mbooloo ñëw teew mambay ñaa sañ a ànd ak mbooloom sañ a dugg tribunal sañ génn sañ a dem def conférence de presse mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu ne Ousmane Sonko léegi ñun da lay xalal yoon wi ngay jaar te doo ànd ak mbooloo doo ànd ak mbooloo waaye tamit bis boo eggee ba tribunal booy ñibbi dal lay delloowaat waaye bu la delloowaatee waa bennoo waa yeewi askan wi bëgg a daje ak taskatu xabaar yi jamono ji waa benno yi doon def conférence de presse ñu ne waa yeewi askan wi ñoom Déthié xalifa Khalifa Habib ak ñeneen ak ñeneen yéen sañoo leen def conférence de presse loolu d'abord fa la tege lu tax ñu ne jàmmi Ousmane Sonko mooy jàmmi réew mi démb danoo gis ni marché yi ma xam man bari na ci ñoo xam ne bi ñu xëyee tijjiwuñu jaayuñu école yi bari na ci yoo xam ne danoo tëj transport bi na mu doon doxee doxewu ko bari na ci lépp loo xam ne dafa tëj ci réew mi kon tëj Ousmane Sonko mooy tëj Auchan mooy tëj Total. mooy tëj marché yi mooy tëj école yi maanaam tëj Ousmane Sonko mooy tëj réew mi tëj réew mi parce que bari nag ñoo xam ne mun ñoon dem mun ñu dikk kon jàmmal Ousmane Sonko est-ce que nekkul ni moo gën ci réew mi comme moom jàpp ko bëgg ko tëj wala bëgg ko fitnaal mooy fitna ci réew mi waaye tëj ko mooy tëj réew mi maanaam ñi yor donkaasi gi te jiite réew mi bu dee réew mi lañu bëgg waay waay nan jàmmal Ousmane Sonko jàmmal ko mooy nan kenn waxul warul dem yoon de waaye bu xëyee ne damay dem tribunal waaye waaye na nga ko gunge encadré ko damay faral di wax naan ab nag bu jëm seeraas ñépp xam na ni bu demee dañ koy rey est-ce que nag bu jëm seeraas jar naa yàkkamti comme ñoo naan Ousmane ko ñoom buñ ko àttee danu koy daan dañ koy condamné ñoom ñoo ko wax Ismaïla Madior Fall wax na ko ak Baye Oumar Gueye ci émission Sud démb dégg naa Moussa Bokar Thiam mu ñu dénk communication gouvernement bi mooy ministre de la communication moom sax ñi ko dénk communication ñoo ko tooñ ndaxte nag koo xam ne bi wax li muy wax doo ci xam dara ah ñu jël ko communication dénk communication bu ñu koy dénk da koy dénk am fasaaxa koo xam ne bu waxee nit ñi mën a dégg mais aussi am lu ñu ci mën a jàngee mu ne le 30 dañuy condamné Ousmane Sonko comme ñoom ñoo ko wax loolu nag li muy dëggal mooy yoon. dañ koy dikk naan ko defal mu def bàyyil mu bàyyi parce que bu dee ay ministre sañ nañu toog ne dañuy condamné diw te atteeguñ ko te li ñu wax ci wàllu yoon mooy nit ki feeg buñ ko jàppee te atteeguñ ko présomption d'innocence maanaam dañuy am njot lu rafet ci moom ni kii deful dara ba yoon di ko daan mais ñi fare ci ñoom ñëpp génn nañ doon ay ministre de la république wax ni dañuy daan son ko loolu ab avocat mën na ko wax ndax dafa far waa ab ministre boo xam ne ci exécutif ba la warul wax ci ni ñuy doxalee lii ji yoonu mim réew di Sénégal kon d'abord Ousmane Sonko condamné nañ ko te kenn atteegul ko mais kooku moo yey biy génn mu woote ne man mi kat damay génn te gunge leen ma ndaxte nag nit ku ne ni nga toll noonu ngay wootee bis du tuuti borom lay tollool te nag bu rëy ci bis bu rëy lay dee waaye nga ni nag bi yoon wa nga war a jaar da koy xoolaat. waaye buleen leeree ni Ousmane Sonko da koy condamné waay waay Ousmane Sonko na a Ndakaaru ba jaar jam ñaajo mais jarul fitnaal jarul sonal jarul jël di dugal ci oto gendarmerie parce que da ko séq ak nawleem te nawleem boobu dugg na ci otoom di mambay ñaa dem dikk ñibbi këram def conférence de presse ñu ne Ousmane Sonko du am loolu kon Ousmane Sonko moom mi teg loolu moom moo yey ne wóoluwul justice moom moo yey ni day recruter juge bi parce que juge bi manduwul parce mbir mi doo xool rek ni Ousmane Sonko mbay Mame mbay Niang la mais da ngay xool ñaari doxalin yi parce que bu ñuy wax justice dañ naan balance la maanaam dañuy peese ñaar gam-gam la leen xool est-ce que yam nan mais bii bu dee dafa jàng jëm fële mais fa mu jàng fa la fare kon Ousmane Sonko la Abdoulaye Wade doon wax laa koy wax mooy lan un homme politique du taxaw tribunal ñu koy atte parce que ñi lay atte say noonu lañu ñi lay atte duñ jël décision bu la arrangé surtout que code électoral bi ñu changé ci Sénégal ne kat de Ousmane Sonko ne de képp koo xam ne teg nañ la daan wu weesu juróom-benn weer ak nangam ci xaalis kooku mënatoo dem élection mënoo woteel kenn te kenn mënu leen woteel te lool xam nga lu koy dëggal mooy kaawu xalifa ak Karim du benn juge bu taxaw mu ne xalifa Sall waruta doon candidat du benn juge bu taxaw mu ne. Karim Wade warut a doon candidat ji nga bi nu daanee Karim Wade ci mbiri traque des biens mal acquis maître Sidiki Kaba mu nekkoon ministre de la justice ji bi mu génnee xam lu mu wax dafa ne Karim daan nañ ko waaye nag ay droits civiques am perte ci dara lan moo indi tey ji Karim Wade mënatul doon candidat lan moo indi Khalifa mënatudul doon candidat parce que ci code électoral bi lañu soppi li tax ñoom mënuñu doon candidat Ousmane Sonko nag yoon wi xalifa jaar Karim jaar fa ñu bëgg ko fa jaar la ñu ne na ko naa tëdd ñu rendi ma jaar ci sama kaw ñi naan procès bi entre ñaari doomu Sénégal la diggante ma mbay ñaa ak Ousmane Sonko mais beneen bi ci topp mooy diggante ki um, usmaan Sonko ak Adji Sarr lu yéeme am ci mooy dañ ne c'est un procès boo xam ne mbir yoon la mais dafa am ay conséquences politiques maanaam yow ci yoon la la teg di la àtte yoon la lay àtte mais dafa am ay conséquences politiques maanaam daan yi nar a dal ci sa kaw. bu dee ni teg nañ ko ci sa kaw dafa war a gàllankoor sa ëllëg ci wàllu politique kon Ousmane Sonko moo yay bañ ay nitam ñoo yay bañ léegi nag ñoom bu leen ko jaralee mooy nanu jàpp Ousmane Sonko nanu ko fitnaal nanu ko tëj ci kaso bi nanu ko toroxal bu leen ko jaralee pour taal réew mi réew maa ngoog man dama jàpp ni réew mi ñi ci ëpp intérêt mooy ñi nekk ci nguur gi man loolu laa gëm parce que ñoom ñoo fi fayeeku weer te du ñu jariñ réew mi dara ñoo yor oto yu baax yi ñoo fi yor lépp. lim naan borom baatu wurus warul xeex ak borom baat caxum nen loolu il faut ñoom ñu bàyyi ci xel kon ñi attiser la feu pour réew mi tàkk nanu xam ne bu réew mi tàkkee ñoom ñoo ciy gën a perte ndaxte ku amul dara du ñàkk dara waaye ki yor dara bu ñàkk di am yaay ëpp li ngay ñàkk kon ñi yor donkaasi gi nañ ci bàyyi xel